Sud FM Dakar 98.5 Il est 17h asalaamaaleykum mbokki xibaaru takkusaan si li si nar a gën a Birama Ndiaye bokk na ci li ci nar a gën a fës ñi nga xamante ne nag ñooy daal di yëngu ci wàllu Croix-Rouge foofee ca Thiès di secouriste yi ak volontaires yi la sàkku rek mooy rek ñu daal di andi ka nga xamante ne moom mooy président intérimaire nekk président bu département bu nekk ca tiwaawan ginaaw bi nga xamante ne nag seen njiit dañ ko joxoñ ne nu mu yoree seen comité boobee déwnat la nga xamante ne dal na xel ba tax rek daal dinañ ci àddu ndekki ji dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono itam ñàkkum ndox gu tar la ñu nemmeeku diggante démb ak tey foofee ca ndar lu daal di fësal la nga xamante ne mooy dem seen ñàkk ànd ci loole ak seen njàqare rawatina ci lu jëm ci wàllu séddale ndox googe nga xamante ne nag joxoñ baaram tuumal kenn ku dul waa seen o ci fànn boobule jàpp ne nag loole ab paan la dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ñaar fukki dëkk ak juróom-ñaar yu ak juróom-ñeent dëkk dëkkaan yu nekk foofee ca département bu Kanel fi mu ne nii nag dañoo bëgg ñu bàyyi lañu ñu demal seen bopp ñu duppee ko communalisation bu njooc noonee lañ ko daal di xamle ginnaaw bu ñu amee la nga xamante ne nag moom mooy doxu ñaxtu niki tey ji jàpp ne nag ngir nga daal di am yenn kayit yi faw nga daal di def lu toll ci juróom-ñaar fukki kilomètre maanaam diggante Ndakaaru ak Thiès ngir rek mën a jote ci loole jàpp ne nag loole mënuñ ci dëkk niki tey dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi xeetu xibaar tolluwaayu mbas mi ñu daal ko faram-fàccee bu dee kiis ñu ànd ceeg kile di Alassane Wade. Sud FM. Birama Ndiaye. cant ak ngërëm ñel na leen ginnaaw bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM ngir tataan fi xibaar yi loole ñu doore ko ci euh, yëngu-yëngal bi am niki tey ji foofee ca Croix-Rouge bu nekk ca Thiès secouriste yi ak it volontaires yi ñoom nag joxuñ baaraamu tuuma yoro leen gu bon gi nga xamante ne seen njit daal di nañ ko fa am lañ ko daal di joxuñ baaraamu tuuma nekk tey ji ba tax rek ñu daal di rango ay morso yu xonq ginnaaw lu xonk li nekk ci seen wàllu tenue yooyu Thiès Babacar Ndaw mu mel na seen mer ñaari at ñu koy muñ si biroom la ko volontaires yi secouriste ba si sax formateur yi fekk assiégé ko ngir won ko seen naxar Malick Sow di volontaire yor kaddu bés bi ça fait deux ans le conseil d'administration ne s'est pas réuni mandat ñaata année la quatre ans la amul benn réunion bu fi am conseil d'administration boobu les entités yi ku nekk am na fa représentant amul kenn ku la mën a wax li am il fait des dépenses avec ses trésoriers un million de yoo xamante ni man ak bi ak secrétaire départemental am ñoo fa demoon def plaidoyer pour xale yi nekkoon ci Covid bi sonn mu jël engagement ne dinaa leen jox dix ans dinaa yokk subvention jënd ay frigo jënd ay ordinateur am équipé bureau am booy nekk ci Covid bi 4 mois dans les hôtels nekk kenn fayu leen. ku màggat Samb moo jiite ak kuréel gi ëmb jigéenu volontaire yu croix bu Thiès. noo doxalin bi gis suñu bopp su ma la lépp luy de lu muy def ci département bi moom moo koy décider te boolewu ci femmes yi ki ñi ko neex lay jël ànd ak ñoom di décider te du yoon 200 la fi def man ak moom ñoo bokk mandat 200 la fi def deful réunion départementale deful régional te amul dara lu muy de bureau laa décision yu muy jël dama ndaw yi si làmmiñu Ousmane Sarr ñoom jàpp na ne tey ji doxalin bi moom ay la yéwén dañ ko war a xoolaat dañoo bëgg booy bu ñu amee formation bu ñu génnee intégré parce boo demee ci hôpital yi ay balancardier kese lañ fay doon ce qui anormal boo dañoo am formation dem ci hôpital liggéey comme ñëpp jeunesse dañoo soxla formation ba tax na tey ji li xaar rek moom mooy mënatuñu delloo ginnaaw bu ñu sukkandikoo si ki yor seen kaddu Malick bi nga xamante ne moom la ñu tuumaal ginnaaw ga sax ñu ko waree foofu yàlla suturaal na ba mu génn ginnaaw ki nga xam ne moom mooy président d'honneur di Ablaye Diong bi mu fa wuutu ñëw it ñëw nañ waxtaan ak moom donte yooxoon nañ ko waaye kenn laalu ko mu génn laata police di egsi si jamono jooju sax la ndaw yi amal benn assemblée général résolution bi nee nañu moom jamono yi jëlee nañu Alassane Ndiaye si bopp comité croix rouge bu Thiès ba wuutu ko kii di Mayib Mbaye bi nga xam ne moo jiite comité départemental bu Tivaouane Babacar Ndaw Thiès Sud FM Mayib mbay boobee la ñu jàpp ne nag moom moo leen war a wuutu euh, gum ba nga xamante ne nag dinañ seet keneen ki ñu fay daal di tek moom nag Mayib mbay mu nekk président commité départemental bu nekk ca Tivaouane Abdoulaye Guèye moo àddu ci seen tur ñu teewlu lu génn suñu ndaje bi tey mooy secours si daje nañu ak euh, femmes volontaires yi ak euh, représentant bureau comité régional bu croix rouge bu Thiès li fi génn nag mooy nit ñi bi ñu manifester ba pare dañoo jàpp ni daal li tax jàmm dellu ci comité régional bu Thiès mooy président comité régional bi di Alassane Ndiaye nekk en même temps président comité départemental bi na joxe démission bu joxe démission loolu tamit teg nañ ci ne à de maintenant ñetti assurer président comité régional de la Croix-Rouge de Thiès li ci des nag mooy au niveau du comité départemental ñoom li ñu tënk mooy comité départemental bi semaine prochaine danañ xool daje xool aussi ñoom la def pour gérer comité départemental bi. waaw niveau central yëg nañ ko donc pour le moment moom présenté gul démission mën nañu considérer ba léegi ne mooy président comité régional bi mooy président comité départemental bi mais résolution Samba ak yeneen membre de bureau yëpp ñi ngi woon teew bi ñuy wax résolution bi te ñoom tamit yaakaar nañu dégg nañu te ñoom tamit nee ñi ngi dem waxtaan moom pour ñu waxtaan ak moom présente démission am niveau national tamit yëg nañ ko ndax yaakaar naa ne éléments yi jàll na Sud jàll na ci réseaux sociaux yi woote nañu ñoom it buñ fi jógee léegi man en tant que représentant de la croix rouge sénégalaise ici au niveau de Thiès di secrétaire allah. mais jàpp nga ni yéen ak président Alassane Ndiaye def. waaw li ma gis nii moom yaakaar naa ni fi mu toll lii dalal rek mooy demam da yaakaar naa ni sax moom dina dem ndax ñi nga xam ne ñoom la bokkul bureau comité régional defal nañ xale yi ne leen ñoom incha allah nañ jox seen tànk pour moom mu dem ndax comme loolu mooy jàmmal kër gi te croix rouge kenn xamee ko coow institution humanitaire la boo xam ne dañ fay nekkal pour dëkk bi te yaakaar naa ni comme loolu mooy dalal mooy li nga xam ne mooy jàmm ki nga xamante ne nag moom mooy ndeyu mbili ji di Alassane Ndiaye jàpp na ne nag dina àddu fii lekk ay waxtu yu néew ngir rek daal di gindi askan wi ci coow loole nga xamante ne moom moo daal di am foofee ca diwaanu cees rawatina ci wàllub Croix Rouge boobee dinañ ci ànd ci suñu yeneen jotaayu xibaar ànd ceeg suñu ndaw lafa fa di Babacar Ndaw ay nit yu bëri lañu daal di tegub loxo niki tey jii ginnaaw bu jàppantewaat bu tar dox diggante askan wa yeewoo foofee ca dugaar ak way takku deri ndaw yu bëri nag niki tey jii la ñu daal di taxaw ngir rek ñu bàyyi nu mu gën a gaawee lépp lu jëm ci wàllub liggéey ya nga xamante ne pick-up moo ngi ko fay def ndaxte ñoom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba tax rek ñu daal di ci yëkki ay kàddu niki tey jii teewlu ngeen ko Jóob Nduur Njaay ci suñu xibaar yi ñu daal di génn ànd cek Denisia euh, Sambu foofee ca Saint-Louis ñàkkum ndox bu tar lañ fa nemmeeku loole nag direction bu daal di seen o daal di xamle ne nag loolee pan moo ko waral ba tax rek ñu gis ne lépp lu jëm ci wàllub ndox mi moo ngi tumuraanke foofee ca diwaanu bàngo ñu fa daal di nekk nag daal di nañ fësal la nga xamante ne moo jëm ci seen wàllub ñàkk ànd ci loole ndaxte nag gis nañ ne nag ci jamono sile ndox nag doon na la nga xamante ne lu jafe la ngir ñu daal di ko fa am foofee ca diwaanu Bango ak yeneen quartier yi nga xamante ne ñoom ñoo fa daal di wër Yves jafe-jafe yu taratar la askan nga yewoo fii ci Ndar di jànkonteel jamono ji ginnaaw bi robinet yi tëjee depuis ci suba samedi bile muy ay jafe-jafe yi tax ba ñu bëri ci askan wi jamono ji jot ñu sangu te ñuy wéy ba tey di wër ndox moomu lee lu ni mel waajile di ko nakarlu. xam nga lii dafa metti situation bii nga gis nii xam nga ni lii metti na ci euh, bépp fan resté toog ñaari fan yoo xam ni gisoo ndox déggoo ndox yow rek ñu coupé ndox mi avertir la waxuñu la dara nga mën a jël sa ay matukaay. mais dafa métti te tamit dañu war a xam ni nit ñi amul mooy kenn mënul saa yoo soxlaa ndox rek dem ci biti di jënd ay bouteilles di litre rek yooyu doole ji ma taw ko. jafe-jafe yu ne mel it la ndaw si la ñu taseel di jànkonteel moom mi nga xam ne ni moo ngi téye sio ci loxo bi di wëri ndox. ndox de lay wër parce que gis nañ ni depuis démb ndox amul ñu ngi doon yaakaar ni tey suba ndox dina am mais bu ñu ñëwee tijji robine yi gisuñ fa même benn pepp ndox gisuñ ko léegi nag ñoo ngi nii dañoo mujjee jël suñuy sio pour dem uti ndox. jënd nañu ay bouteilles Evian mais ba tey ndox boobu mënuñu ko sangoo ndax du doy léegi nag man maa ngi ni jóge fu sori pour dem uti ndox. ñi nga xam ne ni ñoo jiite kuréelu o fii ci Ndar daal di génne bataaxal ci suba si ngir xam ne ne yile jafe-jafe li ko waral moo di paan bi am fële ca diwaanu Bango ci dex fii nga xam ne ni fa la ñu tubee ndox muy bataaxal bi nga xam ne ni waa jile moom xam xamle na ne dañ ci yéex a jot. nga yeew rek ñu coupé ndox mi mais tamit ah, loolu jaaduwul tagul ko jigéen ñi pour ñu togg problème la pour ñu fóot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 ak juróom-ñeent dëkk dëkkaan ñoom nag ñoom ñoo daal di dajaloo niki tey jii di sàkku rek ñu bàyyi leen ñu demal seen bopp maanaam ñu def leen nëpp commune ndaxte commune bi nga xamante ne moom mooy commune bu Awré bu ñu daal di bokk ngir ñu daal di fa am ab këyit rawatina këyitu juddu. faaw ñu daal di def lu toll ci juróom-ñaar fukki kilomètre ngir rek daal di ko amet amut leen la nga xamante ne méngoog nag jamono bu daal di nekk ci seen diwaan boobee lu demee niki école bu baax bërëbu fajukaay ak yëttu courant ki yeewu tax na rek niki tey ji ñu jàpp ne nag faaw ñu daal di fexe taxaw rek ba bedd leen ci commune boobee ngir rek ñu mën a demal seen bopp Abdourahmane Diène. ca Ferlo ba nekk ci département Kanel foofee de askan wi ci jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ndaxte amuñu école amuñu collège amuñu dara ba tax na saa yu ñu bëggee kayitu juddu daanaka dañuy daw lu tollook juróom fukki kilomètre ngir daal di jot eh, ca mairie ba ca commune Aouré li moo tax ba ñaar fukki dëkk ak juróom-ñaar yu lëkkaloog yeneen juróom-ñeent daal di taxaw temm ne dañoo bëgg ñu sampal leen ab commune ndax seen coono daal di mën a dàkk neeroo la ñu dénkoon seen i kàddu ñi di suñu mbokk nekk ca ferlo ba ñëpp xam nañ ferlo ba mooy ban ferlo mooy ferlo bu bokk ci commune de Xawre am na ñaar fukki ñaar fukki dëkk ak juróom yoo xam ne ay dëkk yu mag ak ak dëkk yoo xam ne ay dëkk yu ndaw la ñooñ bu ñu xoolee dañuy mel ni ñoom bokkuñu ci commune Xawre ñu bëggoon ñoom tey nguur gi gestu leen bu baax ñu mën leen am seen commune nga xam ne commune boobu fu ñu nekk fu ñu koy bëgg mu doon mooy njot ñëpp xam ne njot moom cinq kilomètres ci route bi la te bu nawet jotee kenn mënu ci dem te président bi. yile ñaxtukat bàyyeekoo ca commune Awore dañoo dox daje ñëw fii ci Ouro Sogui ngir daal di fas yéene yónnee kàddu kii di njiitu réew mi njaxte bu ñu noppee ci lii nii ci fan yi ñu jëm danañ amal ab doxum ñaxtu ca gox koxate ya ca Ferlo. ñaaw loolu ñu ne tey nag ñu ngi wax njiit gi waaye incha allah ëllëgee danañ dem ba ca dëkk ba wane na luñ bëgg li du ñoom rek ñoo ko bëgg danañ dugg ci juróom ñi ci ñaar fukki dëkk yi ak juróom-ñaar ñoom ñëpp ñi laaj leen da ngeen xam ne vraiment tey lii lu Alaaj Mamadou Djigo wax dëgg la injustice territoriale bi dañ ko war cotiser te fu ñu ko commencé fii du Sangalkam du euh, fële. askan wi yeewoo ci ñaar fukk dëkk ak juróom-ñaar yu nekk ca commune Aour ak yeneen juróom-ñeent ya lëkkaloo fas wu ñu benn yoon teggi seen tànk ngir seen mëbëb daal di antu ndaxte lii seen bëgg-bëgg jamono ji mooy ni ñu doon fukk ak ñetteelu commune ba ca département la mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. ma Diène noonu la ñuy ñëwaat fii ci Ndakaaru addu itam ci coow la nga xamante ne moo daal di am foofee. diggante Palestine ak israel ba tax ay bakkan daal di fa rot. Euh, kàddu yi nga xamante ne Sénégal daal dina ko yëkki doonut la nga xamante ne moom moo daal di doy bu ñu sukkandikoo ci Jim Ousmane Dramé mi nga xamante ne nag Sénégal dafa war a gën a positionné wu rek ci lu jëm ci wàllub OCI di kuréel googu nga xamante ne mu daal di boole réew yi nga xamante ne ñoo bokk ci wàllub l'islam ci conférence islamique boobee ndaxte nag gis nañ ne lu mooy ñaawlu googe dafa war a taxaw rek ngir daal di fexe lépp lu jëm ci wàllub dal gi ñuy dal ci kaw Israël yi daal di ko bàyyi loole ki ko xamle di chef bu laboratoire bu. islamologie bu nekk ca IFAN ca université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru nekk tey ji la ko daal di xamle mu nekkoon émission ganu émission objection àndoon ceek Baye Umar Gueye ni ki tey ci euh, suba FDS les moom itam ci tànk yooyu la daal di taxaw lu itam euh, déclaration bi nga xamante ne mbootaayu xeet yi daal di nañ ko def di ñaawlu euh, xupp ak jaay doole gi ñu nemmee ko foofee ca wàllu Palestine ci ginnaaw bi nga xamante ne nag daal nañ ko fësal ci communiqué jàpp nañ ne ñooñe waruñu yem foofe war nañ def seen kem kàttan jël ay daan teg ko ci nguurub Israël ngir rek daal di fexe dakkal lépp lu jëm ci wàllub xupaate gi ak nappaate gi nga xamante ne mu ngi koy def foofee ci réewum Palestine noonu la ko waa FDS Gelwaar daal di xamle ginnaaw bu ñu daal di fësalee seen njàppale ak. ànd ci wàllu Palestine ci noot gi nga xamante ne ñoo ngi leen koy daal di note ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci action pour les droits humains et di ADHA ñoom itam ñoo ngi daal di yëgluwaat bu baax a baax ci tukki gu jaarut yoon gi. ndaxte nag ñoom ñoo ngi xamle ne <clears throat> ngeen jégal ma ci ndorteelu at gile lu ëpp juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ginnaaw bu ñuy jéem a jéggi waaxu Méditerranée yi foofee nag gis nañ ne. ayu bés ba la ñu génn gën gaaneew fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan bàyyi ko fii ci Afrique sawu jant euh, digganteem ak Tunisie ñeneen ñi juróom-benn fukk fa ñoom daal di ñàkk seen bakkan itam foofee ca wetu waaxu Espagne yi ba tax rek ñu gis ne nag loole doxalin politique bu dem ci wàllub ndaw ñi dafa doon la nga xamante ne dafa lajj faw ñu daal di ci def ay pexe fexe itam nas yooyee ñu koy daal di nas boole ci gune yi képp ku nekk daal di joxe xalaatam ndaxte ci la ñu def ba lépp lu jëm ci wàllub ñàkkum xëy ak chômage ndaw ñi rawatina tukki googe ñu daal di ci indi saafara noone lañ ko daal di xamle jaarale ko ci wàllub communiqué ñu egsi ci xët gi nga xamante ne jagle nañ ko itam tolluwaayu mbas mi digganteeg démb ak tey kenn moo ci ñàkk bakkanam ñaar fukk ak ñaar daal di ko amee bees lu toll ci juróom ñeent waaye tawat fi mu ne nii seen wérgu yaram dafa jéggi dayo ba fi mu ne nii ñoo ngi ci loxo loxoy kër docteur ci loolu itam lu jëm ci wàllu wàllub uh, ñàkk bi lu toll ci ñeenti téeméeri junni yu toftal fanweeri junni ak benn ak juróom-ñeenti téeméer fukk juróom-benn la ñu daal di ñàkk bi péng bi doore ba néega ni teewlu ngeen ci kile di docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci suñu xibaar yi ñu daal mujj mbokk yi fii la ñu yem ci xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alassane Wade mi féete woon ci xarala gi El Hadj Malick Ndiaye mooy dellu siwaat ci defu tour de ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllub wërgu yaram buñ ca euh, ci wàllub tàggat yaram buñ ca noppee bu juróom mbenn waxtu jotee ki la di Aysatu Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci atal ci France lay doon ñu bàyyi leen ngeen wéyandi ak seen programme seen rajo.